réew mi yaa ko fi jëlee. yoo lelelelelelelele yoo aaye eh. gis nañ fi ci mel ni jam ñaajo aleen na autoroute ba Ila tabax fi ay juma. yow la ñu wóolu di sa tur ak sa sant di nuyu kilifa yi ñu fi fekk bàyyiwuñ kenn di nuyu jigéen ñi di nuyu mag di nuyu ndaw moo tax ñu neex ma. moo tax ma am courage pour seet si leen te ngi ñaan Ibrahima euh, Ibrahima Seck Ibrahima sàmm ngeen fexe ba ñu gën a jege ngeen gën di ñëw ci man ñuy gën di waxtaan. c'est ginnaaw suba bu soobee yàlla dina wax équipe bii defar làmp yi nañ tàmbalee fii. ku ne xam ne ne bala nga ne naam ne fa lu ñu man peccum liir bu neexee yaay jaa jàpp ca mbagg ya. président de la république li mu def Touba yéen xam ngeen ne ceeb diwlin suukar gaz depuis bi mu fi ñëwee ba léegi yokkuwul day wàññeeku kon mu ngi dimbale borom kër yi. lu jàpp ci woteel ko ba ñu mën a gagné lieu de vote bii ñu nekk loolu xale yi dama leen di wax ne na ngeen ci góor góorlu nag jàpp leen ci ba nga xam ne bisu élection yi ngeen teel a préparé lieu de vote bi dama bëgg ngeen pare. bu leen nangu kenn di fi am aw kart soxlawuñu ko ñëpp dañoo bëgg ñu woteel président Macky Sall muy bulletin marron bi jigéen ñi nag soxla na ma dajewaat ak yéen incha allahu rabi te. mu dal suñu xel bu baax ñun murit mu ne ko xam naa la nga bëgg mooy naal yi nga xam ne naal nga ko liggéey bii yàlla may la jumtuwaay pour nga àggale ko àggale ko nag dafay jaar ci deuxième mandat bi kon sëñ Mountakha ñaanal na président de la République pour mu am deuxième mandat murid yi sëñ bi ñaan na na ñëpp ne amin amin gi nag li koy mottali mooy kartay fale amin gi du yem ci làmmiñ day day dañuy jël suñu carte le 24 février ñu xam ne benn carte moo valable li pëli di wax kartal ngal ko gootal mooy bi am fas wi mooy marron beige bi mooy chéri Marème Faye Sall ki yaram jigéen ñi ñu jël carte bi dugal ko ci na ba 18h ñu compté président Macky Sall am ndam Oumy kontaan soxna Ndioro kontaan soxna si Mbow kontaan le rappel député Abdoulaye Seck kontaan. boo gisee ma ñëw seet si la nga jaral ma ma jóg dama gis sa njàmbaar ak sa taxawaay moo tax ma ne maay ñëw fii directement ndax ñëwaguma fi woon. bu ngeen xëyee suba teel ngeen dem. voté ji doogo taali añ parce que jigéen ñi ñooy voté ca wàllu financement danañ ci góor góorgóorlu gën lañ fee jàppale gën leen a taxawu. Macky Sall ngeen xam ne président Ablaye Wade dafa ne am na ay xalaat yu mu amoon doon ko dimbalee réew mi mu ne xalaat yooyu day bokk na ci chantier yi nga xam ne président Macky Sall def na ko ay xalaatum la woon mais ne dañuy sant yàlla. bi ñu amee mag mu mel ne Abdoulaye Wade ñu am mu xalaat benn gone ñëw dem ci biirum xelam jël xalaat ba defar ko. nañoo delloo njukkal ki jëf kan moo jëf. kan moo jëf. Macky Sall kan moo jëf. Macky moo jëf. kon leer na. nee na Macky Sall ñaanal naa la sëñ may la ndam kon nag bu ñu xoolee. ba Touba du ci bokk na ci góorgóorlu ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf soxna Maam Jaar ñu ngi leen di sant wasalaamaaleykum. Daga mooy Macky Sall gagné Touba Alié président Macky Sall musu fi gagné ren dañoo bëgg a mu gagné fii. bu leen ko déglu dégg naa soxna Mbuub li mu wax li mu wax dégg naa ko. mais li nga wax ñun duñu ñooñu Galas Kaltoum mi nga tudd suñu xarit la mais nag sunu candidat mooy candidat bi gën ndax lu tax mooy dafa fekkoon ay mag yu doon xalaat ku mel ne Senghor di xalaat naka lay def pour Sénégal avancer Senghor dane woon bu ñu àggee ba 2000 Sénégal comme Paris mais bi ñu egsee ba 2007 2017 Sénégal mel na na Paris loolu kan moo def xalaat bi muy président Macky Sall muy président wadd wax na ne moom xalaatam la woon ñu ngi koy sant di ko gërëm mais na du candidat mais ñun du ñu saaga président wadd parce que ancien chef de l'État la du ñu ko xas ndax mag la lislaam day wormal mag du ñu ko xas ndax taalib Sëñ Tuubaa la ñu bokk ko ñu nangul ko ko. waye nak ñu ngi koy wax ne ko am mag du taal réew nañu dimbalé rek mu dem jappalé président Macky Sall mu gagner premier tour parce que lolu mo war doon waro garab do defal rew ba mu ex bu mu ex nga bëgg ko yaq té mom du candidat Abdoulaye du candidat bu len gis benn couleur foofu ngeen japp ni Abdoulaye la Abdoulaye wad du candidat candidat bi am président Macky Sall la moy borom fas wi na ngeen ci bayyi xel bu ngeen aggé ci irni ngeen jël bulletin bi benn yeneen ñeenti bulletin yi ngeen def ko ci seen lafiseur yéen jigéen ñi góor ñi def ko seen poche bulletin yi neex na xàmme mooy maro bi am fas bi nga xam ne mooy fas Sëñ Tuubaa yi ñu barkeloo kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm dégg naa léegi muy wax ci wàllu projet yi duma daaneel sama kàddu te waxuma ci wax dëgg yàlla Mamadou dañoo yeex xamante mais projet li ci def ñun mat na trois cent et quelques yoo xam ne ñoo ko génne ci PAMECAS joxe ko te loolu firnde ji ku dem PAMECAS gis li ma wax mais fas nañ yéene jigéen ñi danañ fexe ba dimbali leen ci ay projet loolu man man maa la ko wax. dinaa ci wax ak Xaadim Silla mi coordinateur bi mu jàpp ci muy jàmbaar joo xam ne li mu war a def lépp mi ngi koy def ci temps bi mu ko war a def mook équipe bi mu àndal maa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp di la ñaan nga dugg ci biir équipe bi ànd ak ñoom li ñu def Aliou tey boo fi ñëwee sama xol sedd na sëñ Camara daanaka loolu laa amoon li may wax.